mbokk yi ñu ngi ci huitième combat de la soirée ngi noonu waaye tey di leen fàttali ki nga xamante ne mooy sunu yaakaar di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndeysaan woote na tey ci 31 décembre bi fële ca Mermoz à partir de 21 heures ndeysaan ndeysaan kookoy borom alxadimiya xadim yaa day defar réew laa ilaha illallah kon ñu àndandoo wax ra jërëjëfante di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zahiran wa batinan tey daa woote fële ca Mermoz à partir de 21h ndeysaan Firdawsin ci Cheikh Ahmadou Kara kookoy borom alxadimiya te alxadimiya day defar réew ndeysaan ak kooku ngi noonu waaye si tëb ante ngi noonu lan lay waaye Agogo ngi noonu ne tekk tekkaaral di ko xaar Agogo nag bu leen moo fi jaaroon ki nga xamante mooy trompeur moo fi daanoon trompeur moo fi ki nga xamante mooy Siteu bu anti moo fi daanoon ak ngi noonu taxaw di xaar ki nga xamante ne mooy Siteu bu Anti. ak mi ngeen di gis nii ndeysaan tardement ci làmb moo ko jàpp waaye kii daan na ki nga mooy Général Malika. bu anti pareegul non di Aja ay ca combat baa ngi ante ngay gas amna lu muy sul lan lay sul ma ngay waxi ma ngay waxi paregul ma ngay mo ta lan lay waxi ante sulna. na sale dagg nee nañ ko bi daa suuf fëggal sa bi taxawal nii tàllalal tàllalal say loxo yëkkatil ee eh, daanu na yëf daanu na mooyal yëf daanu na di yëf daanu na ay waay sëriñ ba day amaw lay eh, eh. Siteu bu ànd la mu yoroon ca loxo ba daanu na de la ilaha illallah 31 décembre bi ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni daa woote fële ca Mermoz Firdawsin ndaysaan tey taalibe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yëpp fa lañ jëm ndaysaan nee naa la di ko jaar jëfal bu baax di ko wax rek jërëjëfatee di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zaahiran wa baatinan kenn du Cheikh Ahmadou Kara aja Siteu bu anti tot nanen, si bu anti tot nanen. nen waaye la kuréelu sëñ Abdou khodous mang leen nuyu bu baax bu nek rayo agogo ngeen jàkkaar lol Siteu bu anti wan leen ginnaaw agogo ak Siteu bu anti agogo ak Siteu bu anti agogo dag na leewtoo bi def déplacement agogo ak Siteu bu anti jappante nañu Agogo ak Siteu bu anti jàppante nañu Agogo ak Siteu bu anti Agogo ak Siteu bu anti laa ilaaha illallaah ña ngay ñaari mbër yaa ngi wuñu dara kenn dégluwul sa morom Agogo leen ginnaaw Siteu bu anti ak Agogo daan Siteu bu ànd daan na ko moo daan action moo daan boppam